asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communique bi bàyyeekoo ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu alxames ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février mi nekk ministère de la santé de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a ci ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar test yi ñu def ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo ak ñi yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas importé mooy maanaam ki jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ñi nga xam ne ñooy cas communautaire ñooñu nag seen lim ni la tëddee ti Dakar ci région de dakaar ak li ko wër am nañ ci juróom-ñeent fukk ak benn te lim bi nii la tëddee ci yenn gox yi juróom-ñeent ci Dakar Plateau juróom-ñaar ci Wokam juróom ci Liberté 6 ak Diamniadio ñeent ci Point E Mariste Parcelles Assainies ak Rufisque ñett ci Colobane HLM Ouest Foire HLM Grand Yoff ak Kër Massar ñaar ci Médina Centenaire Gibraltar Sacré-Cœur 2 Scat Urbam benn ci HLM HLM Fass Rebeuss Fann Résidence Grand Dakar Zona Fann Hock Sicap Karak Sicap Baobab Waguñaay Liberté 2 Almadies Mamelles Cité Biagui Nord Foire Patte zone de captage cité Soprim cité Aliou Sow cité Douane Malika Jaxaay Diamaguène Pikine et cité Takko ci région yi am nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett te nii la tëdde Thiès am na ci fukk ak juróom Thiès fukk ak juróom fukk ak benn ci Tiwaawoon juróom-ñeent ci Touba juróom-ñett ci Mbour juróom-ñaar ci Kaolack juróom ci Kédougou juróom ñeent ci Daara Kolda ak Saly ñett ci puut ak Mboro ñaar ci Diourbel Khombol Ndofane Salémata ak Ziguinchor benn ci Daaru Musti Fatick Foundiougne Goudiri Guinguinéo Joal Kaffrine Mékhé Podor Popenguine Thiadiaye Richard Toll Saint-Louis Pire ak Bignona ñaar téeméer ak fukk ak ñeent si malade yi ñu entré woon hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen toppoon ci biir kër yi wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci àll àndee ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo nekk réanimation fukk ak ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan ba démb demb ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dale ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak ñett ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn ci ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ci ñooñu ñaar fukki ak juróom-ñett fukk ak wér nañ si juróom-ñett téeméer ak juróom fukk ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni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 ak juróom-ñaari nit jot nañ ci ñàkku yi soo xayma ci li ñu jot a tàmbale calendrier bi nag mu ngi wéy tey ci alxamis ñaar fukki fan ak juróom ci weer bi ñu nekk ñi war a tàmbali mooy région de Sédhiou Fatick Kaffrine Louga ak Ziguinchor 1er mars Tambacounda Kédougou Diourbel ak Kolda ñooy tàmbali ministère la santé de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam